d'abord d' abord damay damay remercier population Sandiara remercier jeunesse bi d'abord parce que ñu population dañuy wax jeunesse bi ma am mbégte diriger zone bi pendant euh, deux mandats successifs te soo xoolee la fête c'était la fête de la jeunesse soo xoolee nu mu demee nga xam ne carrément Sandiara génn nañ jeunesse bi jeunesse bi euh, football nañ kontaan nañ et je pense ñun loolu na suñu objectif que lépp lu ñuy def ñu def ko jeunesse bi

stade comme stade Caroline Faye comme stade Alassane Djigo ou stade sax bu Liverpool je pense que pour euh, deux ci deux rek ñaan nga yàlla sa dëkk avancé Et ñun gis nañu Sandiara mu ngi dem kon ñu ngi ñaan yàlla loolu noonu lu village yooyu lu ville yooyu am ñëw am Sandiara non xam nga maire soo nekkee maire da nga war a ëmb et je pense que c'est l'occasion également euh, magnifier parce que fekk na situation bi ci 1 million 500 3 millions mais na gën a gëstuwaat jeunesse bi surtout terrain bi ku ñëw fii ñun sañ suñu sañoon sax balaa ñu football final coupe meram ñu am terrain gazoné wala ñu am tribune wala ñu am leneen mais loo gis rek ndank ndank la xëy un jour viendra euh, un fils de Sandiara va faire ça wala un jour viendra Sandiara dina am stade digne de son mais xam nga kenn mënul dëkk ci dëkk né do ko jité parce que ñun ñëpp Sandiara lañ dëkk Sandiara mo ñu ñor pour le moment ñu ñu ngi liggéey di accompagner jeunesse bi luñ ci fekk nak ñu jël mais ku ne xam ne carrément nit soo nekkee ci dëkk da nga war a xeex pour dëkk boobu avancé ñun loolu mooy suñu mission dañu indi suñu euh, apport ci édifice bi pour mën ñu tabax Sandiara pour le moment loolu moo nekk suñu objectif xëy na nag ci kanam yàlla ku ne xam ne nag xaadim politicien la politique moom soo koy def moom xam nga li nga bëgg donc mais tey je pense que lu ñu war mooy que ñu accompagner jeunesse boobu noonu waxu wax boobu noonu su jotee dañ ko wax dañ xam fan lañ koy wax fu koy teg incha allah non kenn dàqul diriger sa dëkk parce que kenn mënul am dëkkam ba pare ne noo man bëgguma sama dëkk ku ma xam-xam ne carrément xaadim lu mu am yëpp Sandiara la kon donc dàquma tey ñu ne ma kaay diriger Sandiara ma diriger loolu kay wax dëgg see la taaw bàyyi si ko ne kaay jël kër gi nga kii ko loolu ndamu taaw la donc man taaw laa ci Sandiara